yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf défilé bi woon démb ak discours à la nation bu président bi woon bërki démb ci diggante boobee la journal yi xëy taxaw ñu taxaw ci soleil national mi xëy taxawal ci xëtamu njëkk photo bu président national taxaweetu dend ak njiital l'armée bu Sénégal journal bi dañu xamalee loolee démb la woon ci place de la nation ba ñuy màggal juróom-benn fukki at ak ñetteelu anniversaire indépendance su Sénégal ko ci anam wu màgg wane fa lu am solo wax lu am solo laas yéene kaay nañu suñu réew doole ji moom ci wàllu ngànnaay moom la doon wane démb journal bi boole ko kàddu yu njiit réew mi Macky Sall muy wax ne suñu force de défense ak sécurité yi am nañu ay matuwaay yu mat sëkk yu leen mën a may ñu waggar ci kaaraangeeg jàmmi réew mi direct news nañ li gis ci feetu indépendance bi woon démb wane na ne Sénégal am na matuwaay ngir mën a jàmmaarlu ak bépp danger ak bépp menace fu mu mën jóge nag liggéey na démb ca place de la nation le témoigne mi ngi ñuy xamal ne ay matériel de guerre yu yees lañu Les Échos moom li mu gis mooy Macky Sall moo doon wane démb dooleem xeetu ngànnaay bu xeetu matériel bu nekk Les Échos wax ne génn na ci défilé démb bi a toll nañu ko démb feetuk indépendance su démb gi l'observateur ci ñaari kàddu la ko tënk mu di ay défi yu mag mag ak défilé bu toj li ñu naan puissance de feu mu di dooley defante l'observateur nee nañu l'armée bi wane na démb li mu ci am l'observateur dellu si waate ci message à nation bi njiitu mi Macky doon def keroog bi ñu nee suba la avril yéenekaay bi jukki ci discours ba ñeenti ponk yu muy waxtaane ak spécialiste l'info nañu président de mu tàllal di wooteb dialogue Sud Quotidien xëy na di ko dëggal ci xët mu njëkk ba bind ne Macky nee na ubbeeku na ngiri waxtaan Alioune Aminata Touré Doudou Wade ak Seydou Guèye ku ci nekk ci ñoom ñi ngi wax ci Sud Quotidien ni mu jàngatee message à la nation bu njiit réew mi njiit réew mi Macky Sall ak njiital réew mi di Idrissa Seck ñoom ñaar ñoo nekk ci xët mu njëkk journal Bës Bi Le Jour duo ak duel mooy li bi bind Yankhoba Diattara mi newoon décret tekki ndombal tànku vice président parti réew bi mu ko takkaloon journal Tribune gis na Yankoba li mu jébbalu ci Macky ba ko doon défendaral troisième candidature bi moo tax Mara wàcce ko moom Idrissa Seck Tribune nee nañu génnee na Macky ci course bi ngir élection présidentielle yu 2024 yi annoncé na it dina kay ne ko bu ko waxul ñëpp di ko dégg aw doxinam ak doxalinam li muy wane mooy moom Idrissa Seck candidat lay doon Diatara mi doon défendre troisième candidature bu Macky Sall bi Idrissa Seck li fi amoon ci diggante Omar Gueye fukki at ci ginnaaw Vox Populi nee nañu Yankhoba Diatara loolee ko nar a dal ñu dalee ci libération mi xëy di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne lu jëm ba tey ci enquête bi ñuy def jëm ci entrée gi Ousmane Sonko entrée woon ci clinique suma assistance procureur bi santaane na ñu teg loxo docteur Samir Boulos ak docteur Mbagnick Ngom nappkati Kayaar yeeg nappkati Mboro yi jàppante bi doxoon ci seen diggante journal bi nee nañu jurul jàmm ne lu ëpp téeméeri doomi aadama jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ci ñoom am na ci cinq blessé garaaw ndax dañu leen a sotti pétrole taal leen am na it yeneen ñaari nit yoo xam ne yéenekaay bi ne nañu ba fi mu nekk nii kenn xamul fu ñu nekk CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak marque bi di Dekakila Malaysia Yumo seen marque bi di Enduro ak savon de Marseille Alfi ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mouhamed foofee nga daaneele ci fitna gawoon diggante waa Kayaar ak Mboro moo waral yëglu gu waa ONG Greenpeace ñoom nag bu nu sañoon ñaari wàll yëpp ànd ak dal ca ñuy faral di jiital ci lépp ay waxtaan ak yëgoo loolu dina dal di eh, maye ñu moytu jéey yu ni mel ay bakkan yu rot ak ñu bari di ci am yi gaañu ci mbir yu ni mel préfet arrondissement Cap Rouge Alassane Anne moom daal dafa woote jëmee ci waa MFDC ASP bi ñu jàpp otage ñaari weer a ngi Barthélemy Diatta la bëgg ñu daal di ko baax libéré ndax loolu gis nañ daal dina doon ubbikuk aw xaal ngiri waxtaan xibaar yi bokk na ci lycée bu Ngoy département bu Bambey foofe it euh, ñii di waajuru ndongo yeeg ndongo yi seen bopp ñoo daal di euh, njortal euh, proviseur ba ak jalgati ci wàllu koppar keesu daara ja juróom-ñetti million fa manqué moo waral ñuy sàkku ak jugéem foofe Abdoulaye Diop nekkoon ci technique bi El Hadj Assane yi ñu daal di ca taxaw na mu waree ba daal euh, waxtaan di jiitu ci lépp ndax waxtaan bu jiitoo ci lépp rek daan moytu ay fitna ki musiba yu ni mel yu rotal bakkan wala di gaañ doomu aadama yu bari docteur Aliou Ba la ñu ci àndal mooy responsable campagne Océan bu Greenpeace Afrique ñu teewlu ko. donc Greenpeace mu ngi masaw euh, communauté nappkat yi nekk euh, Sénégal gi yëpp donc ci situation bi nga xam ne moom moo xew entre communauté yu Mboro ak communauté yu Kayar. donc mu nekk situation euh, bu ñuy naqarlu mu nekk situation boo xam ne aussi ah mënoon nañ ko éviter ah parce que tey boo xoolee euh, li indi xeex yi yëpp moom mooy euh, géej gi lu muy ñàkk jën di gën di ñàkk jën loolu moo indi problème yi yëpp te loolu muy communauté de pêcheurs yi muy aussi organisation yi mel ni Greenpeace yàgg nañ ci artu état du Sénégal donc ñiy woo état du Sénégal mu fexe de telle sorte que mu résoudre euh, euh, différent bii ni rapidement mais aussi mu fexe de tell sorte que genre situation yi bañ fee amati mu jéem a xool nan la ñuy def ba ba ba nga xam ne napp Sénégal dina mën a saawaan baawaan ci biir euh, gestion bu durable donc ak beaucoup plus de transparence dans dans la gestion donc loolu yaakaar nañ ni tey suñu ko defee dinañ mën a éviter vraiment genre conflit yi nii yi nga xam ne voilà du honoré Sénégal. Aliou Ba bu Greenpeace ak ay wowoon euh, ci diggante waa Kayar rek waa Mboro ab woote euh, bu tukkee ci préfet arrondissement Kabrousse moom nag euh, tàllal na loxo waa MFDC ngir. ci dëkk bu ñu wax Sandiara Manjak ñu la naan nañ ko bàyyi jéem a négocier ndax yëpp ndax jàmm lépp jàmm la xew. ñu wutali ci département bu Bambey euh, dëkk bii di Ngoy foofu lycée ba fa euh, muy élèves yi di seeni waajur ñooy sàkku ñu jële fa proviseur bi dañ ko tawma ci wàllu jalgati ñeeli koppar keesu école ba juróom-ñetti million da caa manqué leeral Babacar Diouf. ci ay doxub ñaxtu ak ay grève élèves yi nga xam ne ñooy jàngee ci lycée du Ngoy doon nañ laaj ñu indi leeral ci li mbirum xaalis mi nga xam ne dañu dañ ko fee luubal fi mu nekk ni nag seeni waajur ñoom ñoo yéeg ci taabal ji ne lii dafay leer te proviseur bi dafay delloo xaalis bi te nag day jóge ci lycée bi Modou Diouf moo di seen porte parole. problème yi ñu problème yi lycée bi am yëpp. teewul budget bu huit millions lañ ko votel on mille quarante élèves inscrits à huit mille francs mais bi commission d'audit bi ñëwee biñ ko biñ ko laajtee nee na quatorze mille cinq cent francs moo des ci kees yi. kon dañoo bëgg mu fay ñu suñu xaalis te nag ñun bañuñu ba porter ko plainte mais aussi ñu demandons son départ ak départu intendant bi nga xam ne daa ni ñoom ñoo ñoo complot di lekk suñu xaalis di yàq. mu décision boo xam ne nii élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée bi nekk ci commune rural bi gën a ngand ci département bu Bambey ànd nañ ci. pour école bi war a mën a réussir nam daa réussir bu njëkk avant mu fi ñëw bi mu fi dikkee ba tey daa daanu dara baaxu fi. dara baaxu fi dara baaxu fi léegi nag waa audit nañu jàppale mu fay ñu sunu xaalis mook intendant yu jóge sunu école bi dimbale ñu ñeneen ñu baax ñëw fi ñu jàppale ñu te yàlla tax ñu fàttali ne proviseur u bu Ngoy dañ koo tuumaal ne dafa détourné xaalis boo xam ne ni école bi moo ko moom Ibrahima Simaga nag bi ñu jokkee moom weddiwul woon yiitle tuuma wante dane woon da day xaar li nga xamante ni moo tukkee ci autorité académique yi nekk ci région bu Diourbel Bambey yi RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar ci xibaar yi mujj sax intendant lycée boobe moom dañ ko affecté muté yóbbu mbooxu euh, ci poste benn bi ba tey nepp intendant ñu dem ci université ginnaaw si mu fomb ko ab euh, bataaxal ci internet gi ñu sërëxal fompat ak it na mu waxee ci États-Unis ana lu mu bëgg fu mu bëgg a jëm moom Idrissa Seck njàngatu Makumba Beye ba Yankhoba Diattara Idrissa Seck wàcce na ko ci parti bi ndombo tànk gi mu ko joxoon mooy deuxième vice président ci bisu 4 avril bi la ko def njortu ñaaw lool ci ni li waral lool nag mooy troisième mandat bi muy défendre ni président Macky Sall war na koo mën a def ndax le 3 avril gannaaw discours bi moom ministre des sports moo wax seen TV ni Macky Sall mën naa yootuwaat beneen mandat boo xam ne juróomi at la cay def mooy doon ñaareelu naam te loolu Idrissa Seck musta wax lu ni mel mbooloo ko dégg waaye lu jiitu loolu moom ci boppam njiitu parti réew mi dafa woote woon ab conférence de presse ba noppi daal di koy dàqaat at gannaaw bi la dem Amérique ni moom ñaari mandat la fas yéene def yu juróomi at fasul yéene def ñetteelu mandat presse bi xëy ci tasaare kàddu yooyu bu baax a baax ndax mu musta wax lu jege noonu ni moom dana doon candidat ba noppi buggul président Macky Sall yegg ci ñetti mandat ci bisu 4 avril bi gannaaw défilé bi mu bindaat ci page Facebook am muy sàkku ci sénégalais yi ñu ànd ak moom ndax mu indi coupe du monde ci réew mi fi ak ñeenti at ginnaaw bi nga xam ni président Macky Sall indi na coupe d'Afrique loolu mooy tekki ci lu leer nañu ni moom da koo bëgg a remplacer daal di faasewaat ci lu jot na nag Idrissa Seck bàyyi nit ñi muy foyee ak yëfi xale yi muy def yaar la soxla fi mu ne nii benn bi mooy am fit ndax mel na ni ñemewul li muy bëgg a def am fitu wax ni man candidat laay doon bi ci topp mooy waxin wi bu koy wax mu wax ko ci waxin wu set wecc ñëpp xam na ni mbër lay doon te d'accordul itam ci ñetteelu mandat bu fekkee d'accordu ci waaye wiiri wiiri beeg wax ju sotit ji moom doy na sëkk tàggat yaram Cheikh Tidiane maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. dañu koy dal di door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal dañuy dal di dabe. Euh, te jii ci ngoon nag euh, ca Déni Biram Ndaw foofu génération foot dana fa tase ak ñii di waa li Linguère bu Saint-Louis ci bu 16h30 jotee. Euh, ñoom nag buñ ca amee ndam danañ mën a bokk ci podium bi maanaam ci ñett ñi nga xamante ñoom ñoo raw ci gile championnat waaye Linguère ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ daal di nekk euh, boo mooy nag dana fipp loolu nag moo di kaddu Balla Djiba moom mi nga xamante ne moo di entraîneur génération foot ñu déglu ko ci micro Pape Malick Diaw. matchu retard la treizième journée bi la moom la ñuy ñëw jongante nii ak euh, ak Linguère incha allah. Ah, waaw Linguère moom xam nañ ni équipe la boo xam ne fan yi xëy na dafa nekk ci ay tolof tolof waaye équipe la boo xam ne aussi fii génn chaque fois dafa fi indil ay problème ndax su ma fàttali ko daaw ñoo match ni fii zéro zéro mais nag comme ñun tamit fii euh, ren comme ni ñu ko waxee woon depuis début saison mooy dañu nekk dañu tardé tuuti ci ay point kon moom lañ koy moom point yooyu nag la ñuy wut waaw point yi nag lan la mooy jëm koo gañe comme ñun suñu terrain léegi dañ ko bëgg a def terrain boo xam ne ku fi ñëw daal ñu jox ñu jël trois points yi tax daal waaye nag xam nañ ni match bu métti lay doon match bu métti lay doon waaw Linguère moom chaque moo di entraîneur euh, génération euh, foot geneen jogante bi nga xamante ni itam dañuy daal di dabe ca Thiès stade Maniang Soumaré tey ji ci ngoon itam 16h30 diggante SNEPS excellence bu Thiès lay daal di doon ak AS Pikine SNEPS excellence daal di ci place mujj bi moom sax ndamam bu njëkk daal naka am niki weekend bi euh, ci diggante ma ñi di bu Dakar dana am itam geneen jogante ca sa Alassane diggante Dakar. Dakar Sacré-Cœur ak GFC di Guédiawaye football club tey yi ci ngoon 16h30 GFC bokk na jamono gi ci ñett ñu daal di raw ñu daal di taxaw ci euh, beneen équipe bi nga xamante ni euh, gannaaw ba ñu gagné li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique de Nations moins de vingt ans bi di CHAN euh, beeg lu moo di euh, union sportive bu Gorée ñoom nag euh, dafa mel ni euh, mbir moom nga xamante ne daal Sénégal jóge na ci ñoom dañ see daal di bénéficier wu bu baax a baax la waral nag moo di am na yenn si seen i yi nga xamante ni ñu ngay jouer si équipe nationale locale de vingt ans yi dañ si daal di ànd ak kii di Youssouf Bodian moom mi nga xamante ni jot na amal ab jàngat ci mbir moomu ba pare daal di seq waxtaan ak ñi nga xamante ni xëy na ñoom ñooy daal di incarner renouveau bi nga xamante ni daal nañ ko remarqué jamono gi ci union sportive du Gorée di yëngu ci wàllu Ligue bi bi champion d'Afrique U21 mi ñibbisee ba léegi US Gorée jël juróom benn poñ ci juróom-ñeent yu mënoon jël maanaam ñaari ndam ci terrain am ak benn défaite ci biti bokk na ci gayndeem yooyu yooyule Seydou Sano mi nekk ci axe insulaire yi défenseur bi sax bokkoon ci onze type euh, CAN u bi weesu di ab titre boo xamante ni am na lu bëri lu mu soppi ci taxawaayam. am na changement bu bëri am na changement bu bëri parce que képp koy joué tamit dañ lay bàyyi xel tamit gën a jox confiance gën ñu gën ñu gunge instant ñun xeexuñu maintien ñun titre la ñuy xeex wax dëgg yàlla daal mooy euh, objectif bi loolu la ñëwuñu ren pour jouer maintien dañoo ñëw pour xeex titre défenseur bi am fukkeet ak juróom ñett judoo ci Médina am ay mbébét yu rëy Seydou Sano moom jamono yi mu ngi xalaat bu baax a baax coupe du monde u bi nga xamante ni moo nekk seen kanam di ko préparé rek ba bis bu jotee yàlla defal ñu suturaal ñu ko comme lu ñu yàgg visé rek génn dem siège yu Europe soit ñu siège si équipe A bi incha allah loolu mooy suñu objectif. Seydou Sanou Ibrahima Cissokho Mohamed Gueye ak Ibrahima Seck ñooy ñeenti champion d'Afrique yu US Gorée titulaire yi bi ñu ñibbisee ba léegi daanaka seen équipe bii di US Gorée am na taxawaay bu am solo ndax insulaire yi ñoom ñooy sixième Ligue 1 leader bii di jàmbaar ëppale leen juróomi poñ. jërëjëf Youssouf Bodian bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee football ci biti réew ak championnat bu Angleterre démb nag dañ doon dabe itam seen septième journée di jongante ko doon dox ci diggante Chelsea ak Liverpool ndam damul ndam dikul kenn dugalul moroomam dara Kalidou Koulibaly moom jot naa jeu ba match bi jeex ñoom ñaar nag di Chelsea ak Liverpool euh, fu ñu féete wute naag seen ambition yi nga xamante ni ñu ko amoon ci ndorteel gile euh, saison ndax sor lool li nga xam ne moo di Big Four jàpp Big Five bi ba tey ci wàllu football ci Angleterre ñaari bal ci benn Nampalys Mendy jot naa jee googule jongante Leeds United mujj naa am ndam itam démb ci diggante mag ñi di waa Nottingham Forest ñaari bal ci benn Bournemouth moom dafa daal di ñàkk ci dëkkam diggante mag Brighton 2 à 0 ca Allemagne moom Bayern Munich mbettel dëgg la daal di am ci quart de finale bu doon dox démb ci diggante mag Fribourg ñoom nag ci njeexitalu jongante gi la leen Fribourg daal di daan ñaari bal ci benn ab penalty bi finale coupe euh, d'Allemagne euh, Espagne foofu tey ji ci ngoon incha allah dañ daal di amal lii di demi-finale retour lii di euh, coupe du roi diggante. FC Barcelone ak ñi di waa Real Madrid lay daal di doon ca euh, fi nga xamante ni moo di Camp di stade bu FC euh, Barcelone ca match aller ba ca euh, Santiago Bernabéu ci stade bu Real Madrid Barcelone moo ko fa fekkoon daal di ko daan benn bal ci dara lu ci mënti am moom jàppale ni ñi nga xamante ni daal ñu di waa Osasuna ñoom daal dinañoo qualifié ci li nga xamante moo di final Coupe du Roi googule di xaar seen adversaire ñoom démb ci li nga xamante moo di demi tamit danañ amal lii di demi-finale Coupe d'Italie tey ji euh, ci ngoon euh, diggante wala boog démb lañ ko doon amal diggante Juventus de Turin ak ñi di waa Inter dañoo daal di match nul un but partout dana amaat geneen jongante ñu daal di ko jeexale wala basketball ak lii di assemblée générale bu fédération sénégalaise bu basket danañ ko daal di amal juróom-benn fan ci weeru mai euh, ci yoon googule sax mu daal di am ay kuréel nga xam ne daal ñi ngay juddu nord bi di VDN ñoom nag euh, nee nañ daal dana danañuy yëkkati seen kaddu euh, jëmale ko si situation bi nga xamante ni euh, si seen i kaddu situation bu jafe bi nga xamante ni daal basket bi mu ngi koy dund ak ci lu jëm ci wàllu gestion nee nañ nag danañ daal di kon bokk dégager ay piste de réflexion ngir fexe kon bokk nu ñu suqatee google et discipline ak itam boo mooyul danañ kon bokk siiwal seen candidat ngir daal di kon bokk xëccu doon lii di président fédération sénégalaise bu basketball jàppale nag li di délai bi tey jii la ñu koy daal di kon bokk euh, tey lañ koy tey lay àpp gi délai candidature yi ba jamono gi nag ñu wax ak yéen kenn rek samp na ndam moo di président sortant bi di maître Babacar Ndiaye.